ndax fan yi shaaiaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom du ma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def kon am na suñu kilifa gu baax goo ko daa firée ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam walla mu fétteeru dem waaye loolu amul solo ndax Euh, Serigne Touba li suñ suñu borom defal kenn mënu ko wàññi. du ci wax du ci jëf dula la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jéem nañ faa jaar ak moom fu ne jéem nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jéem nañoo jub moom booba it lam wax mooy. fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnaa laha waaye nag wa in taudu naud lu ci ne moo ko kon Sëriñ Tuubaa loolu moo doon tawqi am kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la defu fa dara luñ ko mën a jëme defu fa dara loo xam ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ